asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu dégtal leen kàddu yu tukkee ci sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ndigal lu bàyyikoo ci xalif général des kon ñu ànd déglu kàddu yooyu. asalaamualeykum wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki yëpp. turu sëriñ bi sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu ci turam di leen jottali it ndigal lu jóge ci moom alhamdulilah la alamina ñu gën di ñu di ko gën de gën sante sunu borom bu baax di ko gën gën a sante sëriñ bi bu baax ci taxawaay bi ñépp war nañoo teewlu di di ñaan suñu borom bàyyi ko fi fi mu toll nii baax na fi lool mel na ni mënu fee ñàkk kon ñëpp war nañoo di teewlu di ñaan suñu borom ci baaxu Sëriñ Tuubaa mu bàyyi mu bàyyi mu mu bàyyil na ko fi maanaam bàyyil ko fi sëriñ bi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci liggéeyam bii ci pàggatu bu réy bii mënu bàyyeel. gannaaw loolu lii mu lii mu wax ne naa ko jot nag moo moo di ay na na na mu ko daa defee rek euh, wax na ne ajjuma jiini ñëw ku ko mën na ko woor euh, te it na ñëpp euh, maase ci sàkk sarax na ñëpp maase na nañu nañu maase ci mboolem jàkk yi ak jumaa yi jàkk ju ak jumaa ju ci nañ fa jàng ñetti kaamil loolu la wax loolu la loolu la joxe ndigal eh, dafa wax ne nag jullit ñëpp la ko sant rawatina ñi bokki taalibe yi eh, noonu la ko waxee gi yoon eh, jullit yëpp la ko sant rawatina bokki nag bokki taalibe yi kon kon ndigal laa ngoog nañu ci góor góorlu bu baax te xam ne lépp lu mu seet ba jox nu ca ndigal rek suñu njëriñ rek la suñu njëriñal biir la di suñu njëriñal bitti di suñu njëriñal tey di suñu njëriñal ëllëg kon nan ñëpp nun ñëpp nañ ci maase am ci eh, gën cee fas yéene yeesal suñu pasteef di ci gën a gën a gën a gën a gën a gën a di rafetal suñu yéene eh, lu jiitu loolu lépp di ci gën a fas yéene di gën di yokk suñu itte eh, di gën di yeesal sunu jaayante di gën di yeesal suñu jébbal di gën a yeesal suñu déglu ndigal rek lu mu digle rek su njëriñ rek la su njëriñ suñu njëriñ tey la suñu njëriñ ëllëg la kon nag jërë ngeen loolu rek moo leen ñëpp dañ ci marché yi noonu mu ko wax bopp ñëpp na nañ fa jàng mm, ak jàng jumaa junne nañ fa jàng nañ fa jàng ñetti kaamil te ajjuma ji ku ko moon na ko woor te ñëpp it nañ marché ci sàkk sarax euh, buñ buñ ko dajalee nag nañ ko daa defee rek ñu defee ko ni jox ko ñi ko aajowoo muy néew ji doole jërë ngeen jëf lool loolu rek la kon nag ñooñu nan ñaan bu baax baax eh, su borom eh, dinu dolli suñu tawféex ji ñu am ci sëriñ bi te di dinu dinu dinu gën a gàttu noonu dimbal eh, te ban mën a nekk ci li nga xam ne mooy suñu wartiif muy jaamu yàlla rek jaamu yàlla rek moo nu fi indi dara indi wuñu fi sëriñ bi itam fiñ ko gisee ba fiñ ko noppee gis ci boroom boroom rekk la nekk diggam ak yonent bi eh, kon loolu moom la nu fi bàyyil nu xam ne loolu mooy sunu ndono nan ci gën a gën a waxtu wu nekk nan ci gën a eh, feddali suñu lépp si di fay di feddali suñu laxasaay eh, di di gën a góorgóorlu suñu kem kattan ci fas yéene sax ci loolu rek fas yéene sax ci jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi te yàlla tax loolu rek la loolu mooy suñu wartiif mooy suñu ndono moo moo moo mooy suñu njëriñal tey mooy suñu njëriñal ëllëg mooy suñu njëriñal biir mooy suñu njëriñal bitti jërë ngeen jëf nan góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax yàlla noonu suñu borom gën a gàttandoog ndimbalam te dinu dooleel tawfeex sëriñ Tuubaa ci ci ci ci dinu dooleel tawfeex sëriñ bi ci nun dinu dolli kattan dinu gën a xiir ci boppam di gën a gën a gën a xiir ci sëriñ Tuubaa dinu di dinu gën a xiir ci ci ci ci ci jëf Eh, ya ko gënal ak nam ko gënale waaw ah, yal nañ ko yal yal yal nañ ñu ciy gàttandu eh, te te te te te sëriñ bi eh, gàttan gàttanul ci nun ci gàttanul ci boppam wamatal na boppam ba fa ko tax a jóg waaw ah, amiin jërë jëf ci barke Sëriñ jërëjëf muy kàddu yi nga xam ne moo bàyyikoo ci sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ndigal loo xam ne mi ngi ko jottali tukkee ci Cheikh Sidi Moukhtar Mbàkke xalif général des Mourides mu jëm ci woor bisub àjjuma ak jàng ñetti kaamil ci jàkk june ak jumaa june boole ci saraxe